département Mbacké yëpp département Sénégal yëpp 46 département yi ku ci nekk dafa am bannière boo demee mais bu dee liste nationale bi ku nekk da nga ko amal sa mais bu dee département Mbacké yeewi askan wi ak wàllu Sénégal ñoo fi ànd mais nag ku bëgg a wooteel yeewi askan wi yeewi askan wi amu fi yi di nga fa nekk boo bëggee wooteel yeewi askan wi bulletin wàllu Sénégal bii ngay woote ndax bulletin wàllu Sénégal bi ci la député Ousmane Sonko yi nekk ci la député Khalifa Sall yi nekk ci la député Déthié Fall yi nekk moo tax ñu ne woon ginnaaw ay membre yeewi askan wi wàllu Sénégal rek ñoo fi nekk il faut que ñu leeral leen benn intercoalition la te xam ne assemblée nationale ren bi dafa am solo lool ci yéen surtout yéen safar si ndax ku ci nekk gis na një njëggu seer ci Sénégal ku ci nekk gis na dund gi ni mu seere essence ak gasoil kenn mënut a liggéey loo xamante ni tey jii mën nga koo yóbbu sa képp kuy daw da ngaa mënta ñàkk xëy di daw rek mais li ngeen di am ak li ngeen waroon am comme yàlla ak yàlla kon na tey ji dafa jar bu ñu tollee ci enjeu bi ñun ñëpp ñu jóg taxaw moo waral ñun coono yi ñu jànkonteel ñu di ko jànkonteel waaw ah, dañuy faral di wax ni lii ñuy def ni bu dee suñu njëriñal bopp rek moo tax ñu di ko yàlla bu ci am ndam mais bu dee njëriñal askan wi yàlla ci yàlla may ndam moo taxoon tey ji ñu topp visite de président ñëw xamal leen liñ nekk lan la rek lii mooy bulletin bulletin wàllu Sénégal loolu moo nekkoon rafet na lool ndax ni ngeen def nii ba affaire bi commencé léegi noonu gisaguñ ci kenn koo xam ne jaar na fi wax li nga waxagoon nii dañuy romb ni di wax di dem rek waaw waaye nag suñu salaat danañ jàpp suñu kim laay kattan danañ ko jàpp waaw ko jàpp nu ñëpp ay doomu réew mi lañ ay citoyen dañuy wate li nga wax ni xam nañ ko baax danañ ci jàpp waaw di leen jox seen wàccuwaay bu baax a baax di jiital ci nuyoo bi ak siyaar bi ma Mahamadul Muntaxa xalifatul am li tariqatil muriya di ko ñaanal sama borom mu yàgg fi lool te ànd ak wér di ko ñaanal xalifa mam moor Jaara bi fi jógee suñu borom yokk ay leeram taas ñu ci barkeem ndax kenn du ñëw ba sam sa xel di génn ci waa kër borom saam Serigne Cheikh ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm ci mobilisation bu am solo bii nga xamante ni def nga ko te lii sonn nga ci lool pour mën a am woote nga ci guddi woote nga ci bëccëg te dara waralu ko lu dul ittiwoo goo ittiwoo réew mi ittiwoo goo ittiwoo saam waaye ñi ngi ñaan yàlla coono yi nga ci daj yàlla boo am dara loo ci rëccu ndax ñëpp xam nañ sone si Touba sonn gi sonn rawatina ñi nga xamante ni ñoo dëkk fii ci saam ndax saam bokk na ci quartier yi nga xamante ni moo gën a yaatu ci Touba mais bokk na ci quartier yi gën a sonn ci Touba ku ci nekk xam na ne saam bu yàlla dogalee mu taw pour nga am taxi bu la jëlee biir dëkk ba wala 6000 loolu nag bu yàlla dogalee ngeen bokk ci commune Touba war ngeen a seen bopp ci commune bi ni muy demee mais dara warulu ko lu dul ñi nga xamante ni ñu yor commune bi ñàkk gu ñàkk vision ak yittewoo gu yittewoo seen bopp moo tax ñu bàyyi wuñ leen xel bala maa wax état sax damay wax commune bi Sam jëm boobu moo yëgut na ci Touba la bokk Sam moo yëgut na ci Touba la bokk kon na dafa jot ndaw yu mel ne yow sañ Cheikh Seck ngeen jël seen responsabilité dugg ci géewu politique bi comme Touba moom balañ laa considéré ku mel ne commune balañ laa considéré nga yor sa làmmiñ wu ñaaw di wax sa wax ju bon ñu door laa considéré yéen dafa jot ngeen ko ngeen am xel dugg ci dëkk bi li saam moom ngeen laaj ko ñu jox ko ndax ku ci nekk xam na ne tëli bii nga xamante ni moom lañ jël fan yi di ko indi saam xam nañ ni ñu ko joxee waa mooy programme pakaseen bi bu fekkee dañoo commune yi nga xam ne ñoo gën a def ay performance ñu ne dañ leen neexale ay tëli Touba du ci bokk ndax Touba bokk na ci commune yi gën a ëpp korom bokk na ci commune yi gën a delloo gannaaw ndax ki ko yor amul vision amul xam-xam ab politicien la te li koy firndeel bokk na ci bërki démb li def ñu dénk la ko mel ne Touba dénk ko ci ndigal nga yëkkati 11 millions di ko jox candidat Benno Bokk Yaakaar loolu ñun a def faire face taxaw ci buntu commune ba def marché ne Abdoulaye Kane fi jóge ginnaaw amul jom amul bañ ñoo war a taxaw ne ko di nga jóge ci commune bi ci nii wala ca ay candidat am ku bokk yeewee askan am bokk feneen ak feneen yow nga jël xaalis boo xam ne ñun ñoo ko bokk di ko jox benn candidat Benno Bokk Yaakaar loolu ñun dañoo war a taxaw arrêté ko te à part de maintenant bu élection yi jeexee dinañ def pétition ànd ak mbokk yu baax yi ñu ko àndal fir force larka dina fi jóge dootu yorati commune bi beneen bi ci topp Serigne Seex ñu ngi leen di wax ne élection yii di ñëw élection yu am solo la ci Touba élection yu am solo la ci département Mbacké Macky Sall ba mu fi toogee ba léegi mus a gagné département muy ñun ñi nga xamante ni ñun ñooy ndawi Touba waruñoo bàyyi ba 18 mois de sa ko fi ñu di ko àll ba muy pétition góor jigéen yi sëñ Mountakha da koo signé ne Babacar Mbuub loo ci bëgg dinaa la ko defal bëgguma góor jigéen am Sénégal sëñ Mountakha lim def effort yi mu def yëpp ak yi mu ci daj Macky Sall jël signature boobu sànni ko ci àll ku ci nekk gis na jigéenu Touba bu passé wut fóot ak gerte amul dara lu ñu liggéey amul benn projet de développement boo xamante ni Macky Sall jël na ko tey ji indi ko ci biir dëkk bi loolu rek doyoon nañu sanctionné Macky Sall fii ci biir Touba beneen bi ci toppaat gis nga ni muy dalee ci kaw sëriñ si ba mu fi toogee li mu njëkk a def oto yi nga xamante ni président Abdoulaye Wade mu baax mi jël na ko jox ko suñ kilifa yi moom la njëkk a nangu ba nangu oto xalifa général de Baye Fall ku ci nekk gis na ni muy tëjee kilifa sëñ Tuubaa yi moo fi njëkk a jàpp béccun tëj ko ki dem mu tëjaat Cheikh Abdou Bara Doli ñun waat ak ak waa kër sëñ Saliou suuf Dangote ko kon nag ñun bu ñàkkee fayda ba topp Macky Sall mii nga xam tekkiwul dara démb bër ki démb di ko jox majorité assemblée national ñun ñi suñ kaw lay njëkk a daal suñ kaw kon nañ am fulla am fayda assemblée nationale ren ji lu am solo la gis ngeen milliards yi mu xëpp Touba di jënd nit ñi amatul jàmm amatul salaam ginaar gu xeex sax mun la ñëwal pale ma recevoir la loolu nag dara wër lu ko lu tiit gëm tiit mais Touba ay gor ñoo fi dëkk damay faral di wax ne bu jógee fii tey ji sañ Cheikh xëy na waa APR dañ mais buñ la joxee xaalis jëlal sa njaq mbootaay la mooy 400000 yi nga xamante Aliou Sall sàcc na ko ci pétrole beeg gaz bi mais bu wote jotee amal fulla nga woteel bulletin bi nga xamante ni mooy bulletin wallu Sénégal bi nga xam ne président Abdoulaye Wade ci la nekk ak président Ousmane Sonko samay kàddu du bëri sëriñ daara yi kontaan naa ci ñoom day mel ni mbir mi ñooñu gën a fan yi yëpp lu matul 20 suur ñu ngi ci terrain bi wut seen oto di def porte à porte loolu nag fees na suñu xol dell day war ne Touba ndaw yi fi dëkk léegi yittewoo nañ liy xew ci réew mi ndax am réew moom boo fi nekkee defoo politique ay saay-saay def politique jiite la te loolu nag lu mën a ñàkk la kon asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu le 22 bu kenn ndekki ñëpp lañ ndekki ci Mbàkke le 22 waaw tey préparé ah, Sonko moom moo fi ne li ñu wax dëgg moom moo fi ne parce que Mame Thierno Birahim Sonko moo fi ne le 22 Mbacké Bawol. Touba moom ku ne xam ne am naa kuréel rek Abdoulaye Wade intercoalition bu mag baa ngi nii Yewwi Askan Wi Wallu Sénégal boo bëggee defar sa bopp rek da ngay njëkk li lay defar sa réew mooy jàppale Abdoulaye Wade mooy jàppale Ousmane Sonko mi ngi nii nag képp kuy voté boo demee bulletin bii ngay jël xaw leen ko xàmmee ko bu baax mi bu kenn laal bulletin bu Ousmane Sonko loo ko bëgg bëgg bëgg bëgg bëgg bëgg bu jël bulletin Ousmane Sonko jël nga bulletin Abdoulaye Wade mooy wotal nga Sonko cohabitation incha allahu taala par la force Sonko assemblée nationale gannaaw munta am na leen fexe ba lépp lu fi nekk lu ñu jële ko fi Sénégal ñu ñoo ko moom dañ ko war a defar jërë ngeen jëf asrah li sadri yasir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli salaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi leen di nuyu mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar di leen baalu ak te di leen baalu ak baax a baax di siyaare ñëpp waaye di siyaare kilifa gu baax gii nga xam moom lañ jàkkaarloo mu waral ndaje bi tey muy Serigne Cheikh Thioro mii nga xam ne sunu sopp la ñun ñëpp donte ñu ngi door a gisa tey waaye seen Cheikh ñu ngi koy siifar bu baax ci am pasteefam ak am dogom ak am engagement bu baax a baax ndax réew mii ñu nekk tey képp ku ci nekk di politique rek même ñun ñuy ñun ñuy seetaan sax xam nañ ne ku amul engagement doo dem ngeen ànd ak jàmbar muy këy ñuy wax Ousmane Sonko mu jël ko lool nag ci engagement am ak ak dëggoom ba tax ñu naw ko lool sëñ bi maa ngi lay door a gis mais ku lay siifar laa bépp émission boo def rek maa lay bàyyi xel naw nañ la ba tax seex mi bi mu ma ne dafiy ñëw dama ne kan moo fiy ñëw mu ne ma seex seen seex coro ma ne ko na ñëw na ñëw dañ ci jàpp wóor na Serigne Touba ku nekk nag sàkku na lii ci ñun mais ubbi lañ ko bunt fii nag mooy Sam ñu gën koo xam ci Sam Jaxate ñu nekk euh, ñoo xam ne déggoon nañ nag ci lépp ndax rawat naa man nag xel yëpp dañu maa déggal ndax ab daayira boo xam ne maa ngi fi nekk sëñ Saliou ñu ko tuddoon téeméeri membre ak nangam ñu ngi fi sama kaw lañ toog association mi ngi foofu boo xam ne membre mat nañ téeméer ak daayira mbootaay soxna yi kon nag ñun dañuy xàccondoo du dóorandoo ku nekk jaar na fi nag mais ñun moom ki ñu ubbil bunt bi mooy kan mooy Serigne Cheikh mii bu ànd ak Sonko mu ànd ak Ablaye na Serigne Touba ñun duñu wax luñu gëmat sëriñu daara laa daara jaa ngi nii weer blanc bii boo waxee sëriñu daara yi nii du politique man seex mi laay jàppale te muy du ma wax mukk lu ma gëmat sëñ seex Sidina Muhammad xam ne yow lañu àndal coo Sonko lañu àndal muy laa Wade fii bu la neexee bu ñu watee bu ci suba goo ñëwee fii téeméeri carte APR wala junni carte APR dañ la ko tegal fii duñu leen wotee benn yoon fii jaar nañ fi mais luñ fi nit ñi tabax dañ koy màbb fii kenn lañ woteel ko du Sonko wóor na Sidina Muhammad lañ la wax ne bu ñu wotee ba ci suba boo ñëwee ñu jox la carte APR fii junni tagale ak taabal ji fii lañ koy indi ko jox ñu koy taafe ñoom fii ku fi nekk am ngor am ngor laay wat doo ko woon gannaaw Touba lu nekk laay wat def na ko ay gone may xam nañ ci dara nga ñëw yow ànd ak ñoom engagé engagé boo xam ne man saa booy wax émission du ma defate damay dëgg déglu ba mu jeex ñu ngi sa gannaaw kontaan nañ ci bu baax baax a baax maa ngi ñaan nag barke Sidna Muhammad nga dem bu bokk ci député Serigne Touba yi comme ni Cheikh Abdou Bara Dolly am na moom jàmbaar la am nam nattu nattu bi naqari na waa Touba ñëpp ñëpp la naqari ku ko gis ñaanal nañ ko ñu ñëpp ku ko teewee ko ko teewut bëgg nañ mu ñëw nag ndax moom itam doon nañ ko séentu mais comme yow ñëw nga rek mel na ñëw di siyaare suñu Assane Mbacké ñi nga xam ne engagement na da ànd ak Sonko ànd ak Abdoulaye Wade rek ñun suñu sopp lañ képp ku leen transmet dem feneen rek déglu soo la toog ñun laay wat lañ àndal Sonko ngi jéglu de daara la daara jàng nii boo paree xaw sa maanaam li ma xam mooy dañuy jàppale seex rek te jamono ji lii dañ ne diine ak jamono diine ak jamono nag allah kulli bu ñu ci bokkee faw ñu dund nii di dund nii man na ñàkk léegi ndax yow seetu Serigne Touba nga man séréer la kon boo dee politique man bu ma ci waxee kenn wur ma dara ñun daal ñu ngi lay wax ne ñu ngi lay jàppale bu baax nekk sa gannaaw dañ la woteel danañ la suñu carte sama carte wote ngi dinaa wote ji daaw ma ko def mais dinaa wote ji ngir yow dinaa ngir sonk wax ne mosuma baag nii xale yaa ngi nii sa gannaaw ñun ñëpp benn lañ man kaane lillahi kaane lahu lahu la yàlla koñ bi suñoo def lii mosumaa wax lii bu lépp dana jaaxal ñu bëri mais yow moom jaaral nga ma Serigne Touba nag laa wax man naree wax loo xam ne naa fi ko fekk yow sama nit nga yàlla bëgg noo la bëgg naa sama xol ñu ngi lay jàpp nag bu baax di la jàpp la carte baa ngi ne laay waat la soppe Serigne Saliou la woon laay ku ne xam na ko loolu def nga ko fii Touba ñun moom lay jàppale gannaaw yow yàlla Sonko ñëw doon jàmbaar bu nekk doon jàmbaar ba léegi mu nga dund ku ne xam na mais ñëpp bëgg ko bëgg nañ ko kenn mën doo xam tax ñu bañ bu ñu boole woon ñoom ñëpp naan Sonko Sonko tey lañ ko gën a bëgg kenn mën a fexe kon nag jërëjëf maa ngi jéglu baax ndax dafa guddi maa ngi jéglu baax lépp lu ma wax loo xam ne nag waruma ko wax maa ngi ko jéglu baax sëñ bi sëriñ daara la daara ji yaakaar ne kon bépp di jànge man maa fa jàngal mbaar man wëleel ma ko léegi boo nekk jëf doo sëriñ Touba dem ko nekk nag ndax dof yaa ngi ci biir barki alxuraan loolu waay Sonko waa dégg nga sëñ bi moo de fukki borom ak juróom waa ji dugal na leen ci biir kaaf gi waaw nga xamut mu muy mujj moo yey waa ngay naan